ci loo ne madame la ministre maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga àndal ñépp jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxo Moustapha Ba mu tasal ma ko ci ñi nga àndal ñëpp di la jox seen tooguwaay fii ngeen toog di wax ni réew mi dañu ko war a xoolaat bu baax réew bu amul justice réew moomu du dem te gis naa ni ba président Macky Sall toogee fii ba léegi ci fukki at ak ñaar yi sénégalais yi fiil nañu seefti madame la ministre footum biir néeg dafa am balaa ñu ko génnee ci pénc kër gi may waxee nii taxaw fi tey fii la criminel yi nekk fii la terroriste yi nekk fii nga war a njëkk a xool ba pare fii may waxee nii fii lañuy nasee liy war a xew ci biti kon boog dañoo war a leeral sénégalais yi la am na ñoo xam ne xam nañu mais am na ñoo xam ne seen bopp yi ubbeekuwul ba léegi président Macky sàll nag lépp li mu war a def ci réew mi def na ko like oh non like boo yeewoo gis li mu def mu jox la nag palaas bu riis ngay jigéen bu riis bu fekkoon ni tey danga nga fooye sa bopp def ni jigéen ñi mélange cocktail marato fi doo toog fii nga toog tey Aïssata Tall bokk nga ci jigéen ñi may xool ci réew mi nee naa la bés bu ma amee as bi nga am dama bëgg a mel ni yow di wax nag nga bàyyi xel ma am benn question boo xam ni sénégalais yëpp dañ ma ko wax ma laaj la ko mooy ñi nekk bitim réew di yónnee pour ñu taal Sénégal di fay xaalis pour ñu taal réew mi di saaga sunu institution di saaga njiitu réew mi di saaga sunu kilifa yi di nu saaga dañu bëgg a xam ñooñu ndax mën nañ leen indi justice ñu àtte leen am déet loolu la sénégalais yi di laaj te dafa war a am di la ñaanal nag palaas bii nga toog mu jig la ndax bokk nga ci jigéen yu am fulla yi ak yu am fayda yi bu la kenn xoqatal justice need bi be done in bu nu ko deful sunu réew mi day dem down ay sata te jigéen mooy yoru réew te lii la Macky sàll jox tan ko mérité dëgëral ñii nga jàkkaar lool bëgguñu réew mi dëgëral il faut ñu jox réew mi li mu yellool mooy seef doomu sénégalais yi di atte man Coura bu ma defee lu dul yoon takk leen ma fii ci ensemble ba ma ne ngodd ñëpp di ko xool ngeen yóbbu ma justice dafa war a am cim réew ñun nag dañuy sant président Macky Sall moom la ñuy wax jaajëf dama ni daf noo woo ci plan émergent ñu ne dafay yem mu ne yoonu yokkute gor suñ ci woo war ngaa ñëw yoonu yokkute ñu ne foofu lay yem mu ne rëkk leen ngeen tàllal ci tali yi ne rëkk leen ngeen xool ubbi seen bët yi li ma leen di defal mani bu fi jógee Macky Sall li mu liggéey ci réew mi du mës a jën il faut que nag ñu jaajëfal ko fii ñu taxaw tey ndax moo tax ñu taxaw fii kenn du président Macky Sall ci réew mi waxal leen ko yu baaxam ka toog ca këram deful dara dugaluñ ko ci kaso bi dañ ne France dégage frappe France frappe ma jékki-jékki gis ki ne frappe France dem ca dëkk bay woyaan samba mbayaan ba yori million am ñëw dinu saaga di saaga président Macky Sall fii kan moo fi mës a dégg ku saaga guy gi kenn mënalul dara man rekk ku mënal dara ñun du nu saaga na leer ci bopp sénégalais yi dañuy victimiser wu ci la dëkk fii na xoolal ñun réew mi moo nu ñor te fii nu taxaw réew mi la ñuy waxal su fekkoon nañu bëgg lu neex dañuy sànneeku fee ca Amérique fel-felaale mais réew mi def nu ñor ay sata góor góorgóorlul xam naa ni jigéen bu am fu la nga tey su ma amoon fit dama lay woowe Yaasin buubu mbaa ma woowee la Aline Sitoé Diatta salut